koñ bi ramba ci buntu kër gi ramba ci liggéeykaay gi seytaane baa ngi ça fait longtemps, hein, on t'entend plus, tu fais plus la musique, qu'est-ce qui se passe Hé, hey, mais ma soeur, c'est quoi ton problème ah, Je t'attends parce qu'on t'entend pas, tu es jeune, il faut profiter non Hé, mais ça m'a gamin, ah, hein Ni de fake. Ah, ça, c'est affaire de rambagne, hein Pardon, je demandais juste, je demandais juste. Ah, il faut t'occuper de tes affaires. pardon, pardon, pardon, pardon. Ma vie, c'est ma vie, occupe-toi de Tanya. Napstar. yeah Napstar la star. Eh, ñi nga ñi nga àndal nii ñi nga àndal <laughs> ñi nga àndal tabar fa kàlla de macha allah. macha allah. Napstar. oui tu es la star. oui je suis la star. oh là là tu tu belle et puis li ma li ma gën a neex mooy euh, tenue africain euh, bi nga indaale. Mhm. dafa mel ne da ngay woote africaniste quoi. on est africaine. donc ah. on n'est pas obligé de le faire on doit le faire. on n'est pas obligé de le faire mais on. on doit, doit le faire jàngal na ma de tarkalla dégg ngeen. léegi kon man dama war di sol far force. non des fois mën na ko def mais man. Hmm. je suis pas obligée de le faire mais je dois le faire parce que africaine la hmm. te ñoom Beyoncé ñoom. Euh, les autres artistes yoo xam ne ay américaines lañ gënuñu gënuñu war a gën a bëgg suñu suñu suñu culture ah loolu dégg naa dégg naa dégg xaar mu may ko batma mu mu xam nga fecc dafa ànd ak coona waaw te xam naa ni ñeewul entraînement moom <laughs> dinaa ñëwaat ci moom léegi léegi ay ca euh, boss mën nga continuer woyi ak ci vidéo yi nga xam ni mooy on serait chez vous euh, laataa ñuy dugganteeg moom ci waxtaan bi ibbi ko mu yaatu euh, ndaxte bëgg naa koo dalal ci dal bu nice comme ni ma ko dalaleeg sama copain def donc Astar Ah, may naa la sax astar xam nga astar moom tamit ah, ab star astar xam nga ku dirigé ci yéen ñaar ku dirigé ci yéen ñaar bon man nag sama tur bi dafa yàgg ah. yow yàgg na yàgg de saa tam yàgg na de ya ata ata time may ma ndox bu ma ji loolu dafa yàgg na de. man sama mos ay 2000 la de. Eh, ay 2000 yaa ko njëkk a Assane Assane ah, yaa jëleef jaamu. <laughs> ma nuyu la bàyyi la nga leen teg téléspectateurs yi également yi lay seetaan un peu partout dans le monde. Mhm. bismillahi rahmaani rahim man la Napstar artiste musicienne bi soog a door euh, maa ngi def récemment sama deuxième clip bu ñu naan Rambacc. Kheucha invité ma an de la jeunesse. ni ma foog ñëw fi nga toj fi gars yi gën la xam. waaw maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp aussi ñëpp ñu ngi suivre. <coughs> tey maa sëqat <laughs> moom bu daan sëqat dama naa la yaa sëqat tey maa sëqat ayca euh, ñu ngi kontaan ci yow bu baax a baax a baax ci li ni euh, mhm. wax nga ko léegi léegi l' animateur de la jeunesse. je suis là pour les jeunes. et puis nee képp ko xam ni rek da nga toll ak man âge wala ñu nekk environ de mhm. à partir de de zéro à vingt cinq ans ou trente ans xam nga ñooñu ñëpp ay xale lañu. naa la invité ici au Parc des Princes chaque jeudi. Mhm. pour que nit ñi mën la gën a xam nit ñi mën la gën a dugg euh, mën nañu xam kañ nga commencé def musique man nag musique bi yàgg naa ci je dirais que c'est c'est inné hmm. mais kañ laa ko kañ laa commencé dugg ci musique carrément c'est en 2018 ci laa génnee sama premier clip bi ñu naan sama life Euh, en 2018 après ci laa continuer noonu ba deux mille deux mille deux mille vingt ci laa génnee rambaaj bi. mais rambaaj rambaaj lan nga doon wax ci rambaaj. rambaaj rambaaj xam nga xëccatam la. Hmm. yow dund nga loo xamante ne nii rambaaj la Euh, personne lambda dund na ko rambaaj yi ñu ngi fépp mais man si contexte bi ma ko bi ma ko bi ma ko génnee euh, dama dama defoon stand by mhm. ma defoon stand ñu bëri foog ni Napstar dafa dafa arrêté la musique alors mhm. du loolu xam nga àdduna des fois da ngay jàkkonte ay ay situation yoo xam ne da ngay obligé def stand by xoolaat sa bopp xam mhm. nga soo ko euh, ñëwaat mais am na ñoo xamante ni il se réjouissait de cela Napstar bàyyi na musique dañ ci kontaanoon mais moo wax leen benn affaire mu ngi nii ah. Hmm. teg na tànkam teg na ñaari tànkam. mais na Sarr kon da nga da nga def comeback. comeback laa def te comeback bi nga def dafa ànd ak doole ànd ak. doole cas ngeen rambaaj yi xas waaw waaw rambaaj. rambaaj bëgg ma yàqal sama carrière loolu loolu nga doon kii quoi. voilà c'est ça ah, mais ci beneen côté aussi rambaaj ñu bëri aussi bi ma génnee clip bi ñu ma doon euh, woo ram li wax dëgg la man mii dund laa loolu koñ bi yow mën nga ni sa koñ wala wala feneen ak feneen fépp rambaaj mu ngi fa foo mu ñu wax ci yow. te li ñuy wax xam nga ne du dëgg. Mm-hmm. mais da ngay obligé doo mën a du mën a chaque fois naan non non c'est du loolu lii la du loolu lii la. Mm-hmm. da nga leen di bàyyi rek nga bàyyi leen nag yàlla. Mm-hmm. mais rambaaj yi moom bëri nañu fi. tey yooyu nga ko defee quoi. laa ko defee euh, bi am na fu mu la yóbbu gis nga ci euh, beneen beneen poursuite gis nga ci beneen succès par rapport ak nit ñi naka lañ ko gisee. bon pour être franche bi ma ko génnee je ne m'attendais pas à ça parce que ñu ñu bëri ñu may woo de partout vraiment. comme que c'est au début man je di que tout début est difficile te mm. début boo xamante ne nii gars yi déjà ils ils apprécient sa produit donc je dirais que lu baax la dama naan rek gars yi nañ ma gën a ñaax gën ma encourager xam nga man damay soxla yooyu ñu may encourager may dem critiques yi aussi euh, si la bokk parce que day tax nga forger wu day tax mu gën la nga gën a jëm kanam et donc euh, maa ngi sant ñëpp di a gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi nekk sama ginnaaw di ma jàppale maa leen di wax merci. je vois bien que tu t'exprimes en français niveau d'étude bi mën nañ ko xam. man def naa master 2. moo tax nga dégg tubaab kay muy làkk ne bon euh, vous savez euh, euh, ce que je veux dire man dafa taxaw bu ma gisee nit di làkk yenn tubaab yi rek. Mhm. da nga xam ne kii niveau bi kii ah, yaa ngi master 2. maa ngi master 2 waaw ñaaraat nga am. man est-ce que aw ma <laughs> yaa ma mag <laughs> yow moom yaa ma mag moom yaa ma mag. man maa dama foo ko teg. ah mais xool master 2 man 2016 laa am bac. non mais am na ñu nekk master 2 am 18 ans. amee waaw bi ma amee bi ma amee. am bac. bi ay kii ay 12 ans yooyu laa am bac. mais 2000 lan nga am bac. no franchement 2012 laa am bac. 2012 13 14 15 16. kii moo magee 4 ans. 4 ah! la moo magee. non non non maguma la. ah kon man maa yow da ngay woote naan l'animateur de la jeunesse waaye yow mag nga de. ah. ah mënoo ma sikkim bi. man kon la moo tax xale yi bëgg mu man xale laa de. Ah, xale nga waaw waaw baax na man samay 18 ans ba tey ci laa yem. léegi xale nga xale nga bàyyi ma bàyyi la noonu. waaw kay euh, Gré yónnee naa la yenn ci ay vidéo ci euh, li nga xamante ni moom moo di on serait chez vous mën nga nu ko baaxee bu fekkee ni yemb da laataa ma leen di fàttali itam ni leen mën ngeen woo ci 88 628 14 13 amis chers téléspectateurs am na beneen titre boobu ko. laa a génnee. ah sama live foog ñu indi ko quoi. leen ko. ah eh, kon Gré préparel ko sama live bi boobu kalew ma ko woon man bii rek laa kalewoon. kalew sama live bi kale ko. <laughs> ah da ngay bëggante. sama live du affaire bëggante sax yow teg ko rek après di nga comprendre. wax ma rek lan la loolu yooyu. affaire kii la. sama vie quoi. non waa sama live mais comme sama comme comme góor en tant te sama live comme nga ni sa jabar sama live sama copine sama live. loolu laa la wax. waaw mais mais yaa ngi bëggante kan man ah. waaw bu baax. Ah. ñaata. mu ne. man maa ngi nuyu sama jëkkër bu baax. je fais coucou à mon mari. ah ah, ah tu es mariée <laughs> oui bien sûr. eh ji doon ma téye may wax nii rek. ay ayca ñu dem seetaan sama laaj ci la bokk. xaw ma woon nag. <laughs>